mbër na loo xamante ne vraiment ñaanu ko yàlla rek moom solo waaw loo ko mën a wax te ñaanu ko yàlla yàlla dafa ko jàmm dafa ak mun ko def waaw loolu euh, euh, euh, kontaan rek parce que xam nga nit yor na yor na fi ne lu ne gàññ toog ruuxam mais nit koo xamante ne yàlla suñu borom da ko jagle moom teraanga di ko bokk ak doomu aadama yi bokk ak ay njabootam ak mbokkam rawatina fi mbokk mooy njabootu waa kër sëñ Hadj Malick Sy Tiwaawan donc moom yéene saa su ne muy def lu baax am yéene saasu su ne di def lu baax ñu ñi di ko gis ah vraiment loolu nekk na geste noble nekk kenn ku nekk di nga tey référence ci biir dëkk bi kenn ku nekk di nga bëgg am dara def ko ku nekk di nga gis li nga xamante ne lu baax la nga ne yàlla naa mel ni diw yàlla naa mel ni Aziz bëgg a def ba def ko raw kon exemple yooyu muy joxe dafa am solo ci doomu aadama bi ba tax na daal ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram yàlla may ko wér-wér la saa su ne mu koy gën a mën saa su ne muy gën a yomb ci moom ndax lu baax nit mënu ko def te du ko gis te yaakaar naa ne mu ngi koy gis suñu borom yàlla na ko yàlla defal jàmm loolu gis ne même jëf ji mu def ci waawoon noonu la ko defee euh, Touba mu mel ni sax dafay joxe exemple euh, këru diine yëpp benn la euh, moom ambassadeur la ci yi nga xam ne ñoom ñooy këru diine yi ngir ñu gën mën a ñëwal seen waaw boo seetee mën nga ne Aziz c'est la boo xamante ne bëriwul nit di def li bokk wala boog ñun gisaguñ ko parce que nit koo xamante ne foo dem macha allah mu ngi fay yëkkati jël tarixe yi def leen benn. di dugg di duggante ak ñoom di kaf ak ñoom boo demee Touba noonu Tiwaawan noonu Laayeen ba ci Xaadir ba ci Laayeen ba ci Ñaseen moo xam ku mun ci doon ñëpp benn lañ def donc vraiment ñoo ngi koy ñaanal daal euh, mooy loolu yàlla na ko yàlla dafa jàmm. merci beaucoup dafa ku fi doon def témoignage bu am solo. Euh, sax révélation di wax ni euh, daanaka Aziz su duggee ci làmb ji grâce à Balla maanaam objectif am sax c'était pas de tëgg ay làmb mais jàppali Balla Gaye moo tax waaw ah, non Aziz moom ñëpp xam nañ ne mooy li ma la wax rek lu baax yàgg na ko def man mii di wax euh, je me rappelle bien 2005 laay dugg dugg ci làmb euh, même ba ci mbapat du du tey la mooy taxaw wala nangam moom njëkk a fayal salle de musculation pour ma dem di entraîner pour am doole donc mbaaxaayam ak euh, def li nga xamante ne day taxaw doomu aadama wala xale bu bëgg dara mu taxaw la ci yàgg na ko def ba tax na daal ñu ngi koy ñaanal jàmm rek ay moom koy ñaanal jàmm moo ëpp maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxaat alhamdulilahi rabil alamin ci téere gàmmu 2022 ni mu deme ndax Abdoul Aziz tabarakallahu jotoon na ndigal ci turando Mawlaay Abdoul Aziz Al Amin du ma tay di ko fàttali parce que sénégalais yu bëri dañuy gis mbir bu ko interprété du ñu xam nan la demee mu am suñu baay bu baax mu jox alxaaji Mbay Donde radiyallahu anhu dafa wax naan lu tas lu ne wala mu yàq wala mu am mauvaise interprétation li ko yàq mooy ñu romb nettali te fekkee wuñu ne xew lan la donc nit moom bala mu am sañ-sañu séede day fekkee Abdoul Aziz turandoom moo ko digaloon ni ko loo man ba ci nag yi mu yóbbu wane gi nga koy wane ak siiwal gi koy siiwal ndigalu turandoom la ci diine ko teg ak alquran mooy ñiy joxe ñaari façon joxe kat ñoom ñiy joxe te seen loxo ndey joor bi ko joxe loxo càmmiñ ba du ko yëg ak ñi nga xam dañuy joxe mu siiw mooy sirran wa alaniyatan waaye alaniyatan boobu sëñ Abdou moo ko joxo ñoom ni ko lii da nga def ku sañoon sa turandoo def ko rawatina jëf joo xam ne ci sa ay maam la tàmbale jaar ci sa ay wayjur ba ñëw ci yow bu ñu nekkee ci concept gàmmu nag daaw Covid 19 ñëw gane si woon ñu Abdou Aziz defoon lu mel ni waaye li ci amoon interprétation mooy kër gi loon inauguré boole kook ay limu kaamil yu bari def wasifa ci ji jàkka ji woo mbokku taalibe yi ak mbokku jullit yi ba ñoom ñëpp kenn ku ci ne ñëw dugg ci mbalaanu wasifa bi li nga xam ne moom la sa tariqa sant nga def ko. ñu génn daaw ñëw ren coronavirus jóge fi yàlla bu mu fi ñëwaat yàlla na mbas yëpp teggi àdduna teggi wala Sénégal teggi ñu Abdoul Aziz lii muy def daf ko def ak plaisir barki dem bi ñuy dàq nag yi di ko yóbbu ci sëriñ bi bi ma demee dama wax sëriñ bi ni ko la ko sa baay digaloon yoon wam ko tegoon ci loolu la nekk def na ko Touba koroog Cheikh Mamadou Bachir Abdou Khadr déglu na ko tontu na ko ñaanal ko xalifa général des mourides ñaanal ko ak yeneen foyer religieux yoo xam ne ñu ngi ci Sénégal mais li ma marqué ci Abdoul Aziz mooy lépp lu mu ci def soo laajee mun la ñaanal ma yàlla li may def yàlla moo ci gis sama bopp kon day tegu ci cadre innama nutiikum li wajhi llaahi la nuridu minkum jazaan wala shukura ren ji nag xalifa bi jël thème bu am solo muy wa quulu li naasi xusnan donc Serigne Babacar Sy Mansour dañ ko war a ñaanal ndax li mu digle bokk taalibe yëpp ngi ci waaye Abdou Aziz Ndiaye doomam ji mi ngi ci ndax sëñ Babacar Sy Mansour bi mu ñëwee jiite njaboot Cheikh Seydil Hadji Malick daf na ko sa turandoo Al Amin de ñaanaloon na la gërëm na waaye yow ba ma lay xam go loolu mooy seq naag say waajur seq naag say baay loo xam ne boobu gën a goo àdduna bi gërëm ko ñu woote gàmmu Tiwaawan wala lu ko jiitu juma Tiwaawan bu Cheikh Seydil Hadji Malick Abdou Aziz jël li mu deux cent cinquante millions def ko ci démb rek suñu xarit suñu mbokk alxaaji as ndaw ñoo na fii seede loolu alxaaji lamin kamara al amin seede na loolu waaye tabarakallahu soxna baali muntaka yabal na fi délégation ñu seede loolu cheikh bachir abdou qadir yabal na fi délégation ñu seede loolu ba bi ci guddi jigéenam xaritam def fi teraanga bu rëy di soxna Mominatou Kébé seede loolu daayira yi nga xam ne ñoo nekkoon ak papam depuis Guédiawaye Aziz génnewul kenn boddiwul kenn xatalul kenn boo xoolee kër gi daf ko def ba pare wutaat ay pàkk ci ginnaaw ni lii bala am lu ma neex mooy wut fi résidence al amin boo xam ni fu ganu yàlla jóge di ganu Seydina Muhammad ci guddi gàmmu nga ñu nga dal fi soo ñëwee sa teraanga dina mat ci wàllu xéewlu soo ñëwee sa teraanga dina mat ci wàllu jëfandiku waaye kanam mooy ganal a gan te Abdoul Aziz baax na ndax li ma fi jaaxal ci ñi xaritu démb mi depuis 30 ans na waa géej ay Aziz changé wul ay xarit changé comportement changé wu jikko ñoom ñoo fi ñëw ñii nga xam ñoom la ko yàlla booleel sa parti job bu sëñ Abdou Aziz Alamine mi ngi koy nettali barki dem bi liste bi demee ci sëñ bi njëbal Cheikh Seydi Hadji Malick daanu dañ suuf waaye a jox ji jox na la ci liñ koy ñaanal daal mooy li sama turandoo ñaanal kaaraange ak sutura ndax ku yàlla aar nga mucc waaye ku suturaal kenn du la yëpp te bi nag ma ci attiré waat seen attention yéen taskatu xibaar yi Serigne Babacar Sy Mansour nee na képp xam ne boo diffuser benn xibaar mu yàq deru gor wala nga waxal ko wax ju ñaaw yoo xam ne ëllëg mën ngeen koo layee yomal xiyam na nga tënku ci thème bi nga xam ne xalifa jox na ko muy waqulu li naasin xusnan ne dites que du bien aux gens kon loolu nag la responsabilité première day incomber site internet yi day incomber la press en général yàlla yàlla taxaw leen jàppale leen maa ngi leen di gërëm di leen sant Abdoul Aziz li mu def def na ko ci turu Masata Magam